aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu topp ci seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar delsi ak yéen beneen bunt ci épisode yi ñu tàmbali fan yi ci jaan yi ni ma ko waxee toujours jaan ni couleur yi jaan yi wuutee noonu la firi di wuutee ni façon jaan yi wuutee noonu la firi bi di wuutee contexte ak situation yi yi muy fekk nit ki noonu la firi bi di wuutee kon nekkul nit day firi ne la dama gént jaan nga jox ko benn réponse bu exact daal di taxaw euh, kenn du wax ne comme li ma ko waxee ci vidéo passé li gars yi di wax du noonu li may waxee noonu loolu xam-xam nangu ko waaye daal jàpp naa ne jànn ñu gëstu ci bu baax a baax jaan ci gént li ngay njëkkee tey maa ngi ñëw ci couleur bu multicolore ñëw naa ci couleur bu ñuul ñëw naa ci couleur bu jaune multicolore laa indi tey couleur jaan boo xam ne dafa am ay jaan boo xam dafa am ay couleur yu wuute yu bari ki ma njëkkee tey mooy góor comme ni ma ko baaxoo maa ngi koy wax ci vidéo yi dégg naa ñu ne ñun ci commentaire yi jigéen ñi rek la ñuy waxal man ñi koy wax xëy na seetaanuñu normal wala bokk xaw a ñàkk màndu am na ndax boo dee seetaan chaque vidéo bu may tàmbali damay njëkkee góor chaque vidéo góor laay njëkk a wax <laughs> waa góor goo xam ne am nga soxna laay wax après dina ñëw ci góor gu amul soxna dinaa ñëw ci célibataire dina ñëw ci jigéen ji ëmb dinaa ñëw ci jigéen ji doon sëy ba jaan bu multicolore wala ay jaan yu am ay couleur yu bari yu bokkul mun nga gis ci góor baaxul day firi pexekat noon bu bari doole wala noon yu bari kàttan ñenn ñi neen dana firi ñàkk gu tar wala crise financière gu metti baaxul ci gént boo géntee ray ko day firi mucc ci crise ba bu dee crise la bu dee ay noon la day firi mucc ci seen pexe bu dee fexekat day firi yàlla musal la ci baax ma ci gént jigéen bu am borom kër nekk ci néegu sëy gént gis jaan yu am multicolore wala jaan bu am multicolore baaxul day firi jigéen ju bon jigéen ju doy waar jigéen ju añaan euh, ku doy doy waar daal koo xam ne dafay def ay pexe di la dugg te di la wan kanam gu set kanam gu leer wan ne ku la bëgg en ci biir biiram yéenam rafetul yéenam baaxul jigéen bu nekk ci néegu say gént gis jaan bu am multicolore wala ay couleurs yu bokkul wala ay jaan yu am couleur yu bokkul moytul te xam ne am na jigéen ju doy waar ju lay dugg yàlla nañ ci yàlla musal boo géntee mu mu màtt la wala mu di la wut naka noonu baaxul day firi pexekat boo xam ne mën na laa yàqal ci sa jigante ak say nit mën na laa indil jafe-jafe ci sa sëy mën na laa indil jafe-jafe ci sa liggéey baaxul boo géntee gis jaan yu am multiple yu bokkul ñuy génn ci sa kër wala ñuy génn ci sa néeg ci jigéen buy sëy day fi mucc ci pexe yi ma la wax moom ci mën a doon boo ko rayee kazalik day fi mucc ci jigéen joo xam ne da doon sëy ba tas divorce gént gis jaan bu am multicolore wala jaan yu bari yu am ay couleur yu bokkul ci jigéen ji doon sëy ba tas baaxul day firi stress ak njàqare ci suusi wala problème bu mag boo xam day jugee ci nit ku doy waar ku la ko ku la ca tàbbal baaxul soo ko rayee day firi mucc ca bu mu ca mënoon bu dee jafe-jafe yaa xar-xar ya bu dee pexe nit ko day firi mucc ca baax na jigéen jigéen ji ëmb yaa gént jaan bu am multicolore ci gént surtout nga gént mu wër la ñu wër la baaxul day firi nit ku nit ku la wër nit ku la dugg nit ku la jege lool fexe ba ak accaparé la te noonu la te pexem baaxul léeg-léeg dina firi jigéen joo xam ne pexem jubul joo xam ne mën na laa yàqal wala mu lor la soo ko reyee day firi mucc ci yi ci mën doon boo géntee mu màtt la jigéen ji ëmb gént jaan bu am kulóon bokkul màtt la day firi musiba ju rëy musiba gu métti ci sa ëmb baaxul li may wax nag lépp loo xam nit gént na ko ci ma ne la baaxul musul ci seytaane sarxel ñaanal yàlla musal la ci sarax jërul xaar ganaar gu xonq jërul xaar perkaar jërul xaar nàngam sàkkal sarax ci li nga am te bëgg ko nga génnee ci sarax bi léegi lu mën a doon yàlla musal la te nga ci yàlla muslu ci seytaane góor laa dellusiwaat boo xam ne salibateer nga amuloo soxna nga gént gis jaan boobu surtout nga gént gis benn jaan boo xam ne da lay jox couleur bu zone couleur bi di changé melokaan bi di nangam couleur bu jaan bi da nga koy xool muy soppeeku di soppeeku day firi jigéen joo xam ne dafay foyee sa jigéen juy soppeeku waaw la naan dala bëgg te bëggu la dalay foyee li baal ma kàddu gi lii lii li ñu tuddee dalay mbaraan di la foyee baax na la kulli euh, ko rayee day firi mucc ci pexe xale bu jigéen amoo jëkkër gént jaan bu am couleur yu bokkul baaxul lan lay firi day firi góor gu bon góor gu doy waar gu dugg la pour takk la wala pour séq ak yow te en nekkul góor gu baax góor gu doy di la gu doy waar wala mu am mbir moo topp mbir mooy bëgg soxla ko lool séq ak nit mu la koy liggéeyantil wala ngeen ànd ci liggéeyanti te nit ko tuwataa daf la ci mujj wor wala mu lor la ca boo ko reyee day firi mucc ca pexem wala lu mën a doon alaakulli xaalim lii moo dellu ci couleur jaan bu am multicolore ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partage bu ko am laaj ngeen jaar ci yoon yi ma sàkku wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu